mais rey bi mooy euh, li ñu doon reproché la semaine dernière tey mel na ni ñëpp ñu ci fekk si. Mm-hmm. parce que quand la lettre est sortie. Mm-hmm. Euh, ñëpp dañu daw na voilà waru leen woon bind pré waru leen woon bind président waru leen woon def lii. na donc euh, ba en en interne jot jot nañ ci waxtaan ak yu mel noonu sax. Mm-hmm. et je le disais ci plateau seen benn confrère ne leen man j'assume ma ma responsabilité ma part de responsabilité dans l'écriture de cette. de cette correspondance au mhm. président mhm. kon bu ñu ñëwaatee tey ki mu succédé le président Wade taxaw di mhm. demander la dissolution du conseil constitutionnel ñun on n'a pas été jusque là-bas mais terewul su koy demande kan la koy demander ku dul le président kan moo am pouvoir dissoudre le conseil constitutionnel ku dul le président donc entre dissoudre le conseil constitutionnel ak demande ko à ce que mu rappeler ses sage à ce que ñu appliquer le droit parce que il faut ñu rappeler Sénégalais yi que le rôle du conseil constitutionnel c'est pas de faire une interprétation de de, de la loi mm-hmm. moom li ñu bind loolu la war a bind avant première avant première la war a liir warul ne non dix heures la onze heures la déedéet avant première lañ ko wax loolu la war a lire yoonam mm-hmm. newul ci heure bi ñu ko def tey bu fekkee ne après midi la wala heure bu mu mën ci doon moom li mu war a liir loolu la war a yem et loolu la ñu mm-hmm. demandé à que le conseil def ko malheureusement loolu moo andi tey euh, cas yi nga xam ne moom nga wax revue de presse bi deful lu dul rek résumé l'actualité du Sénégal ak euh, aussi bien vue de l'intérieur comme euh, vue de l'extérieur et que liñ ci liñ ciy déploré déjà comme liñ ci wax par rapport au Conseil constitutionnel euh, wax nañ leen bëgguñu dégg ñu rejeté suñu suñu suñu suñu suñu demande yëpp mais ci kaw loolu mm. wax naa ko dem seen ay confrères aussi bi ñuy ñëwee sur le cas de Karim moi personnellement je me sens concerné mm-hmm. alors que je suis pas du PDS mm-hmm. je me sens concerné parce que dama am njaboot yoo xam ne ay binationaux lañu donc je me sens concerné mm-hmm. te ñoom it ay dañu yore nationalité française par le biais de leur maman qui est sénégalaise mais qui a la double nationalité donc ñoom ñu ngi juddoo France yore nationalité française ay ataay sénégalaise lañu demain dans dix ans dans vingt ans mun nañu ñëw bëgg jiite réew Sénégal. donc le problème se pose et pourtant. Mmh. tey mmh. jii dama leen di xool mais l'amour que mes mes enfants et ça c'est c'est la pour la plupart des enfants issus euh, de de la diaspora. Mmh. mais dañuy bëgg Sénégal na ñoo xam ne yow mi juddoo fi màggee fi sax ay reef lay jàpp. fu mu ne nii bi bi commencé ba léegi bu ñu wàccee xalaatuñu sol leneen lu dul maillot Sénégal. te pourtant ngi jigéen lañu ñeneen ñi ñu ngi góor lañu mais terewul seen seen seen yoon new ci c'est le Sénégal c'est le Sénégal. c'est le donc loolu tey boo bëggee ñëw ñu ñu taxaw def lu mel nii mais dañuy toog di seetaan aussi dañuy déglu. Mm-hmm. est une manière d'exclure tey la diaspora sénégalaise la diaspora c'est pas uniquement les gens qui ont quitté le Sénégal pour dem euh, mm-hmm. à l'étranger mm-hmm. du ñooñu rek mais tey bu ñu fa demee ba construire fa une vie xale yi juddoo fa. mais c'est des gens yoo xam ne ils ont hérité de cette nationalité comme ni ñu ko jëlee ci dëkk boobu. te te tey pourtant ñun bu ñu toogee gis doomu Sénégal boo xam ne jox nañ ko ndombal tànk en en Europe mais ça fait notre fierté. tout tout récemment Pape Ndiaye bi mu nekkee le ministre de l'éducation en France mais ça a été notre fierté mm-hmm. Rama Yade bi mu nekkee dans le gouvernement français mais mm-hmm. c'était notre fierté Sib mm-hmm. euh, euh, Sibeth Ndiaye aussi c'est notre c'était notre fierté même Maïmouna Maïmouna Ndour la ki bi ñu dugal académie fële médecine mais voilà bi ñu dugal académie euh, mais mais ça ça fait notre ak tant d'autres léegi nan la ñu mën toog ñun di glorifier wu ci loolu et que dans l'équipe tey tey jii est-ce que ñooñu tey mais nan nan la ñu war a mën a sentir. et bu ñu fàtte ne ñu ñu ngi toog di glorifier wu parce que on a une coupe d' Afrique mais coupe d' Afrique mënuñu ci génnee les bi binationaux. non non dañu waxante dëgg mënuñu ci génnee les binationaux. non du tout. tey ji Aliou Cissé bu woote woon sélection boolew ci binationaux yooyu gars yi na ko abal ñu. Mm-hmm. mais alors pourquoi est ce que ñu war a mën a toog ne léegi par contre dafa am pàcc boo xam ne ñoom ñu ci bokk. et mm. ça. soxna Maria si yàgg na siiw loolu xam na ne ça a toujours été mon combat. parce que dama mës a wax ne ne il faut pas qu'on considère la diaspora comme une entité à vocation économique. Mhm. waruñu toog rek defe ne diaspora dañu war a toog di. investir au pays. Mhm. mais sur le plan politique. c'est le mhm. seul domaine boo xam ne dañ ko fermer la diaspora. moo tax man j'interpelle la diaspora par rapport à ce qui se passe bu ñu jël rek ne c'est un combat de Karim c'est tout la diaspora qui est menacée par rapport à ces décisions bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel jël et que man loolu laay nekk di défendre wax naa ko waxaati ko j'avais la possibilité de prendre la nationalité française jëluma ko parce que xamoon naa ne am na ay aspirations mais tey samay doom amuñu choix amuñu choix ba xam dañ koy jël ou pas parce que leur maman ay française mm-hmm. donc amuñu choix boobu mais noonu mu nekkee nekkee noonu mais am na ci samay neveu yi fa nekk yoo xam ne mais seen rêve yëpp malgré que ay responsable la ñu en France mooy ñëw investir au Sénégal rentrer dans la vie politique ouais, peut-être ak yu mais on leur ferme la porte à, à cause de cette de cette affaire là et je reviens sur un détail soxna Maria nañ jàpp ne bokk na ci li enrichir suñu suñu justice la jurisprudence française mm -hmm. moi je suis juriste d'entreprise je connais le droit donc lii gën a enrichir suñu suñu suñu suñu suñu justice mm. mooy chaque fois yàgg nga dégg avocat fii buy plaider mm. amul jurisprudence sénégalaise boo xam ne mun na renforcer ses arguments euh, en droit mm-hmm. mu dem jëlee la jurisprudence française mm-hmm. dañ koy accepter kon mënuñu xaar ba tey bëgg wax ne non non pour des problèmes de souveraineté duñu appliquer le nanga nanga moi je suis pas du PDS mm. je connais pas Karim j'ai beaucoup d'amis au niveau du PDS et ils m'ont beaucoup soutenu dans dans ce qui m'est arrivé si injustice bi nga xam ne moo ma dal. Mhm. donc c'est tout à fait normal su ma gisee loo xam ne ne serait-ce que ak raison yi ma jot avancer su mhm. amee foog ma mhm. wax ci. et je suis une personne bien bien bien bien bien. bien placée bien placée pour en parler. parce que nekk ci diaspora bi nekk fii ba pare subir une injustice. ko euh, maanaam cas d'école yi dafay tegloo. nous allons faire voilà donc du coup euh, ni kaa ni kii ni mu teg loolu li may bëgg a terminer foofu mooy nañ jàpp ne ne bi muy dugal euh, demande de de de. renonciation de renonciation bi. Mhm. décret bi mu génnee gis nañ ne ça date de deux mille vingt trois. Mhm. mais rappelez ne en droit français soo ko soo defee sa renonciation quelle que soit la période bi décret bi di doog a génn. Mhm. il est rétroactif. on considère que année bi mu bi mu defee demande bi mhm. loolu la ñu dañuy considère depuis boobu il n'est plus français mhm. kon mhm. tey jii malgré que décret bi bu génnoon tey mais aussi aux yeux de l'administration française dañuy jàpp ne depuis 2023 Karim Wade n'est plus français parce que a renoncé et que ci loolu la waroon tey jii sukkandiku ñoom pour mën a wax beneen bi ci nekk mooy ñoom suñu bopp bu ñu toogee di ndax booy diran technique mbagg day fekk ngeen mën a tolloo soxna Maria dañuy toog chaque fois naan doy tubaab yi tubaab yi tubaab mais chaque fois ñu woon ñu leçon de démocratie. Mm-hmm. te ñun Sénégal waratu ñoon am dara lu ñuy jàng ci wàllu démocratie. Mm-hmm. l' exemple de l' ministre Manuel Valls waroon na mën a tax les sept sages parce qu'on considère bu ñu nee nit ki sage na cest dire war nga mën a toog àtte ci ci ci ci ci sagesse. Mm-hmm. Manuel Valls il a été premier ministre en France. jóge fa dem Espagne bi nga xam ne fa la juddoo màggee fa nekk fa candidat et pourtant c'est passé comme lettre à la poste dérangé wul kenn dérangé wul européen kon tey jii man bu fekkoon ne tey jii am na euh, am na am naa euh, ay euh, lien ak la Côte d'Ivoire par exemple. Mhm. mais waroon naa mën a jóge Sénégal dem nekk dem nekk candidat en Côte d'Ivoire. Mhm. pourtant ak. ak système d'une euh, d'harmonisation bi ñuy wax. Mhm. Boubacar Camara il n'a pas hésité à aller servir au Bénin. te dérangé wul kenn. Mhm. au cœur de l'administration béninoise. Mhm. kon pourquoi tey jii ñun Sénégal ñu bëgg nekk en régression par rapport ak yenn kii donc vraiment ma je soutiens euh, la position du PDS. par rapport à la à cette demande de dissolution parce que cette conseil constitutionnel là vraiment c'est c'est la honte du Sénégal à l'heure actuelle.